mais dama ko dégg mu wax rek ay waxam gën maa doy waxi ñeneen ñi te ba léegi nii histoire jox na ma raison tey que ni la Ousmane Sonko ni woon complot d'état la décision bii ñu wàccee muy diffamation loolu moo dëggal waxi Ousmane Sonko ja parce que mass fii def nañ fi ay plateau yoo xam ni ah jamono boobu défendre maanaam am dañ ko doon wax ak gëm-gëm waaye sax amaguñu woon preuve yëpp. tey nag dañoo am preuve yëpp yi wale ni mbir mi jarul jàng droit jarul jàng euh, nasaraan day laaj rek nga nekk nit pour xam ni ñii benn mbir benn objectif rek lañ am mooy bugguñu Ousmane Sonko bokk ci élection yi. Mm-hmm. loolu nag commencé wul ci usmaan Sonko. <laughs> parce que ñun réew mi lépp fi la ñu fekk te suñu discours mosul changé gis nga ma président Macky Sall depuis ñu fal ko ba tey dafa xam nga li ñuy wax ni nit boo fàttee li la fal rek dangay ngay folleeku mhm. Macky dafa fàtte ni li ko fal mooy ay carte dafa fàtte ni li ko jox doole ba tey mu mën a jël décision ñëpp ànd ci mhm. mooy ay loi parce que yow boo juddoo ci am réew Ah, yàlla dogal réew jàngal la formé la jox la ay ndomba tànk ci démocratie ak i loi ak tànneefu askan yow ci lañ la joxee liñ la jox moo la def tey li nga doon mais boo fàttee loolu musiba la. Mm-hmm. te fàtte gi mu ko fàtte mooy dañu ni bëreet doomi lay wàdd ju koy wax Karim wàdd ñu ti ñu gëmloo ko ni Karim Wade mii boo ko bàyyee dafa yor xaalis appareil la am te yow amoo parti vingt cinq pour cent nga faloo boo ko bàyyee day ñëw doo am deuxième mandat ñu lancé CREI yi fu baax ñu fàttali démb bi ñu lancé CREI yi mennum Karim Wade lañ ci jàpp dugal ko ci kaso bi tëj ko ba mu de ba mu neex leen ñu xëy bàyyi ko exilé ko dem Qatar <coughs> le ministre ancien ministre de l'intérieur Ousmane Ngom bu ngeen fàttali ko bokkoon na ci personnalité yi CREI yi waroon a jàpp bu ngeen fàttalikoo ku mel ni Ablaye Balde bari woon nañ bari woon ku mel ni Omar Sarr nga xam ne tey mu ngi toog conseil des ministres ci la bokkoon bari na tey dignitaire teeru PDS yoo xam ni ñu ngi ànd ak Macky Sall di ko jàppale ci politique am ñu xëy jël kër yi sànni ko géej kenn waxatu ci kon lu taxoon a jox kër yi mooy fexe ba kaay leen ànd ak man mhm. man ñu ànd gouverner wala yéen du ngeen exister loolu réussir na ko ci Karim Wade parce que boobu sénégalais yi consi jàpp ñu woon ni waa ji jo dañoo jàppoon ni lii jomm na ko def parce que réew mii ku xam réew mi xam ne dafa am ay baat yoo xam ni daf cee dafay jar a bàyyi xel ci say jëf mhm. mooy jomm jomm ok loolu moo ëpp doole loi ci réew mi diw kat jomm naa def nii diw rus naa def lii loolu ay baat la yoo xam ne pénc mi da koy bàyyi xel ok ñu gis ni jomm ko def xëy nañ daal dégg Karim ñu génne ko Karim moom lu ñu ko fi jiñoon ay milliards lañ ko jiñoon. 138 milliards 138 milliards. non 138 milliards mooy bu mujj bi. bu mujj bi waaw. bu mujj bi 4000 milliards la ñu waxoon. 4000 milliards. dafa baax rek ñu fàttali. Karim moomu tey day bokk. oui. <laughs> day bokk def nañuy fexe ba mu bokk. ma daaneel rek c'est important Gawsu. après waaw ah. non Karim day Karim day bokk Karim. de na déglu rek dañuy waxtaan. dama bëgg nga déglu ma man du ma wax lu nit di dindi. ba ma fi dalee toog di waxatee waxaguma lu nit di dindi. li may wax neex na la am neexula kay ngay wax. Mhm. parce que man li may wax dama ci sóoraale ñaari malaaka yi nekk fii. Mhm. Mhm. gëm ne dañ may dugal fii laaj ma kon daal Karim day bokk. Karim du bokk Karim day bokk. Macky Sall bëgg mu bokk. moo tax day bokk loolu laa gëm parce que boole nañ ko. parce que Karim dafa nangoo négocier. moo tax mu bokk. Khalifa Sall luñ ko fi doon ji. kon def damay continuer sama logique bi fi jëlee ci Karim ci noonu nit ñi continuer jàpp ni. garaawul daal parce Sénégal peuple bu am tolérance lañ. yàkkamti wuñu ñu ni bëreet Khalifa Sall am appareil maire Dakar ñu ne ko Khalifa sàll ñëwal ànd ak ñun xalifa Sall bañ bu ngeen fàttalikoo Mimi Touré mi lañ jëloon porté ko pour dakaar ñu dem xalifa Sall gañe leen ñu xëy indil xalifa Sall dossier justice. jàpp ci Khalifa Sall tëj ko ci kaso bi. ay encent maire génn ni lii Khalifa Sall yore woon kees gi ñun noonu lañ ko yoree woon. mais Khalifa Sall malheureusement bi ñu koy rendi amul appareil. presque boobu. dégg nañ ci ministre Mbaye mbay Niang mu ne mu ñëwoon ci ñun. Euh, Mbaye Ndiaye non dafa baax ñu fàttali fay rek. Mhm. Ousmane Sonko jàng na ci Khalifa Sall ni rendi nañ ko parce que dafa am ambition. Karim Wade rendi nañ ko ndax dafa am ambition. Ousmane ko bi ñu yëkkatee complot bi mu ni leen di ngeen ma rendi mais seen loxo dina takk deret. Mhm. seen loxo takk na deret wala takkul deret. <laughs> dossier boo xam ni li ci dee mat na téeméeri nit. Mhm. ñu dem devant les devant les juges ñu ni viol amul menace de mort amul <laughs> léegi yow mi jiiñe viol ak menace de mort yow lan mooy sa responsabilité ci ñi faatu <laughs> loolu bu après 2024 lañ koy àtte mën da ñàkk man li may wax ni logique la yow yaa jiiñ nit ki ni yow yaa jiiñ nit ki ni dafa am viol jiiñ nit ki ni dafa def menace de mort <laughs> ah ba téeméeri nit faatu ci ah, ñu dem juge bu sincère ni menace de mort amul viol amul léegi yow mi ju yow mi jiiñee loolu ba loolu am lan moo ci sa responsabilité dañoo waroon ubbi enquête xool lan moo nekk ci ginnaaw loolu ok moo tax démb rek damay dégluwaat déclaration bi Ousmane Sonko defoon bi ñu koy convoqué dafa baax sénégal yi dégluwaat ko loolu mu ñu waxoon moom la ñuy dund mooy complot d'état te loolu ñu ma loolu même juge yi ci boppam ah, man nañoo toog wax ko parce que dañoo génne ab décision justice ki ko génne di ab juge boo xam ci réew mi la dëkk ñoom ñoo ko formé ñu lànk ni duñ ko appliqué ba sànq may wax ak yow lii bu dul complot d'état lan mooy complot d'état yow wax nga ko léegi ci histoire àdduna man gisaguma ñu ne ab principal opposant dañ ko dañ koy dañuy dox ci tere ko mu bokk li tax ñu war ko tere mu bokk mooy dafa défamé benn ku ñuy tuddee ab ministre. te kooku sax muy def muy def plainte bi nee na du ministre nee na. cadre cadre aviation civile la. Mm. kon xam nga Ousmane Sonko dafa am lu mu réussir. te loolu war nañ ko cee sant. mooy fax na fexe na ba senegal ñu xam kii yee kii. Ah bon waaw. Sénégal fi mu nekk nii xam nañ ñiy wax ngir Sénégal ak ñi doon wax ngir seen bopp. ok yow tey ji Sénégal kenn umpaytu fi. xar kanam yëpp xàmme nañ leen. ñi doon wax ngir ngir dañuy wax par pression moo tax ñuy wax wala ñuy wax ngir par parloo wala ñuy wax ngir dëgg te loolu Ousmane Sonko moo ñu ko defal parce que dafa fexe ba topp leen ba ba ba futti leen ni léegi ñoom ñoo doon wax naan force reste à la loi nee nañ ñun gëmuñu état de droit tey Sénégal xam nañ ñi gëmul état de droit. Mmh, te loolu c'est très important mu des nag le projet de Ousmane Sonko moo am solo lu jëmmi Ousmane Sonko ji moo am solo usmaan Sonko anticiper bu mu anticiper loolu moo tax mu jël ay nawleem ñoo xam dañoo ànd ngir Sénégal kese ànd ngir cause ànd ngir démocratie des ci réew mi mu dooleel leen teg leen ci wetam man moo tax affaire yi li ma ci ëppaloon solo leer na. li ma ëppaloon solo mooy affaire bi ndax complot d'état la wala du complot d'état te man leer na sama bopp ci ni complot d'état la te gëm naa ni li ëpp ci sénégalais yi majorité bi gëm nañ ni mbir mi complot d'état la. ok ok te te te le dernier mot. Mhm. revient au peuple sénégalais. Mhm. ñoom loolu la ñuy fàtte. Mhm. kon ñun xam nga ci lan lañ nekk fi mu nekk nii bu fekkee am na message bu may lancer man patriote yi mooy la page de Macky Sall sera tournée. parce que Macky Sall dafa am loo xam il faut ñu comprendre ko ci tamit mënul pardonner Ousmane Sonko am na loo xam mënu ko pardonner Ousmane Sonko. mooy lan mooy ñàkk gi mu ñàkk def troisième candidature ci Sénégal. <laughs> ok jërëjëf. non damay daaneel maas. daaneel foofu mu ñëw ci. xam nga lu ma hmm. parce que ñaari choix la amoon mooy ma négocier ak Ousmane Sonko pour nekk candidat moom bu bañee ma jëm ko éliminer wut beneen plan. mu nekk candidat Ousmane tamit comme stratège la moom it comprendre na loolu nee ko man éliminer ma terewul man ma am candidat ñu profité tas parteem te fi li ñu def nii dañ ko dañ ko ñimeegu la wax mais dinañ ko wax waaye même buñ ko waxee man dama gën ni amul benn sens parce que li am solo tey élection yi Ousmane mooy nekk le roi wala mu nekk le faiseur de roi moo tax ñun dañoo ci anticiper combat boobu. Ousmane Sonko mooy roi. wala le faiseur de roi. mas nga ci jublu. li ma ci jublu mooy mooy peuple bi ma daaneel. Hmm. peuple bi comprendre nañ ni. Hmm. li fi jaata jaar dossier yi fi jaar yëpp ay complot la te peuple bi musta ànd ak kuy complot. ok jërëjëf peuple bi bañoon hmm. moo tax mois de mars biñ biñ ko jàppee ñu génn taxaw génn ji ko. ok jërëjëf. yaa ngi dégg te peuple boobu ba tey moo fi nekk kon damay wax rek patriote yi ma daaneel bu ñu kenn yëngal wala nit ñi tiital. tey la ñu war a gën a concentré wu focus ci déglu Ousmane ko fan la jëm. ok foofu la débat bi nekk. fu ñu jëmee. Mhm. ñun ñu jëm. ok waaw <laughs> ñu ñu am foofu rek bañ a propagande ah. <laughs> hmm. <laughs> euh, dama bi yoon damay njëkkee ci ci ci ci jante euh, parce que dafa dafa am réunion bu am solo bu war a dem. mu hmm. euh, ñëw ci yow ci mbirum parrainage bi <coughs> parce que parrainage bi yaakaar naa ne yuuxu dafa jib fu ñu ko foogeewul. dañu gis ay candidats yoo xamante ni ñëpp jàppoon nañ ne kenn du leen xalaatatee parrainage ñu leen di wax am ngeen ay doublon externe nag ak yu bëri gis ñoo xamante ne ñëpp jàppoon nañ ne duñu dem ñu gis na ñooñu aussi validé nañ seen candidature ba pare ñu ñëw ci fichier fichier boo xamante ne aussi jur na coow ci réew mi loolu ba